fi tefes gi commencé xabru bàyyi nii fii la tefes gi yemoon fii ngeen gis muy tooy nii la tefes gi yemoon fii ngeen gis muy tooy la tefes gi di yem muy dem di dem maa ngi dem de maa ngi dem de muy dem di dem di dem di dem naka maamam defe woon di dem di dem di dem di dem di dem di dem barkiroowulaay bàyyi laay mooy yaa rasulilaay waaye ndox mi dem ngay gis tefes gi di dem bàyyi laay mooy yaa rasulilaay yaa ngi dem ba léegi taxul nga taxaw de bàyyi laay mooy yaa rasulilaay ngay dem din yi sabal bàyyi laay mooy yaa rasulilaay yaa ngi dem ba léegi yaa ngi dox di dem bàyyi laay mooy yaa rasulilaay yaa ngi dem yaa ngi dem te ba léegi yaa ngi ci tefes gi kenn du Seydina Limaamu alayhi salaam barkiroowulaay sa téléphone bi sax day sóobu ñu la ko Thank you. Alba dénk naa lay sama xol lu ma waaye def lu mu miti miti rek naa ko muñ te jéggal ko loolu da ngeen ko mën a déggati ci salamtu min allah daayu turan ma atuja li rabbi wa baabu laay lam yakun murtaja kooku mooy xaadima rasulillah njàngum alxuraan ak sunna nekkoon na li ko gën a ñor Serigne Abdoulaye Thiaw Laay nekkoon juróomi xalif bu Baay Laay ginnaaw génnuk àdduna Seydina Maam Alassane Thiaw Laay ci atum 2001 li ñu gane àdduna ci ñaar fukki fan ak juróom benn weerub octobre atum 1926 Baay Abdoulaye comme ni ko ñu faral di woowee yoroon na kàddu kër gi ci xalif généraux yu bëri yi nga xam ne ni ñoo jiite kërug Baay Laay gi ginnaaw génnuk àdduna Seydina Isa Ruuxulaahi ginnaaw ak tàggat ci wetu way juróom bu góor moom moomee sax yóbbu ko mu jàngaat li nga xam ne ne mooy diine lii di science mystique ci daara yu bëri ci réew mi balaa moo dem ci armée way juróom bu góor boobu tabboon ko ci lu njëkk mu jiite wayu diine ci guddi gi ñuy màggal ga nekk àdduna gën ci mbindeef yi Abdullahi génn àdduna ci altine juróom ci weerum août atum 2021 tolloon ci juróom-ñeent fukk ak juróom ko tedd ki ñu ko denc ca jàmmalaay ci wetu way juróom bu góor Seydina Isa Ruuxullahi Cura.